ci li nii ñaar la condition nécessaire mais pas suffisante mooy jaar-jaar waaye boo amul jaar-jaar mënoo yore réew par contre léegi li ñu ci a yokk mooy kon li nga wax population yi adhéré ci say proposition laaj ñëw absolument oui et ensuite xam la ndax man dama ko quatre-vingt-treize yi au moins quatre ans yi kenn xamu ne waaw daal daal ne bu ma compter treize quatre vingt et leen. kenn xamul ndax ñu nga jógee Burkina Faso wala ñu nga jógee Thaïlande yéen Sénégal yi joomi ngeen de Sénégal yi laa yéen di laaju seen réew si xamu leen yi laay waxal de ñi laay réew ni quatre-vingt yi xamu leen leen da ngeen dégg pour la première fois ñu ne réew mi jox leen ñu ko waaye yow tamit koo wóoluwul doo koy déggee koo wóolu di ko dégg ma tribile ko koo wóolu di ko dégg kon condition yi mooy nga am jaar-jaar pour que ëllëg kenn du tiit jàngaloo xamoo amoo xam-xam wala jaaraloo état xamul luy état xamul luy journal officiel xamul luy conseil des ministres xamul na koy organisé boo ñëwee xamul luy budget duñ la koy joxee pour nga liggéey ci da ngay mën a sax pour yi def milliards yi alors que dafa da dañ ko dañ lay dañ lay tibbal ministère bu ne nga ñëw ne président laa léegi rek ko wàllu li wax Idrissa Seck sa co sa coono yëpp jeex na léegi soo terminé da ngay tibb rek il paraît que ministre bu njëkk bi sax war naa ko Matar waaw moom mu ko yoon banque mondiale bu ko waat laa yaakaar bu def ah il faut ñu teg ko ci yoon mu ne ko dàq naa da ko waat dama lay président xam nga donc nit da ngay am jaar-jaar mais comme il l'a dit adhé adhésion populaire man man mën naa ne maa ci gën a populaire déjà Kouthia émission yi daan def yépp il faut boole El Hadj Diouf <laughs> parce que dafa bëgg nañu suivre parce que El Hadj Diouf moo la intéressé non mais bu ko deful bu ko deful xëy na dara ñu bëri dañ ko seetaan. donc xam na ni euh, euh, je termine là-bas je termine par ah, non mais euh, non dama ci ci condition yi xam nga condition. mais ñu ñu posé question bi n'est pas suffisante. Ah, mu ñëw deuxième aspect ah. après jaar-jaar. popularité. Mm-hmm. kan moo gën a populaire ci candidat yëpp 93. diw moo ci gën a populaire. Ousmane Sonko moo gën a populaire en quoi. populaire en quoi. waaw waaw man lañu gis même Macky Sall ne eh. mais Ousmane Sonko moo la gën a non non c'est pas vrai non non non. moo ma gën a. moo gën a populaire na trop ko Ousmane Sonko. xam nga bandi mën na am popularité mais popularité bi nga mooy popularité buy bu normal. mais popularité popularité popularité bu normal. mais mais popularité bu anormal popularité normale mooy nga taxaw di 23 juin nga ji porté la en triomphe Sénégal yëpp la El Hadj Diouf El Hadj Diouf ñu jógee ci loolu li fa am ci réew mi toujours comme ni ñu bëggee taal Sénégal temps yi passé benn Sénégalais moo defar Sénégal ça fait El Hadj Diouf bañ taal këram. bandi yi jóg salafiste yi jihadiste yi terroriste yi rebelles yi ñu tey dañuy taal Sénégal man loolu du fi am su dee ne Diouf bu taalum bii taxaw fii kenn du ko napp ils ont tout fait pour ma bañ a defaat Adji Sarr. dem ba taal suma kër soo bëgg naan aji saa jarul lii alaji mbokk yi oote ay kilifa bàyyi dossier bi ma ne du ma bàyyi dara nañ waree sax ma xam ci jiyaat laa nekk. waaw Baba sa invité bi du ñu may ñu poser ay xale yu ndaw ay xale yu ndaw eh, la. gan gan la ah, xanaa kay nga ñu mais maa ngi pare jox la. de yow yow koy pare bu la seetaanee dama ni condition. ñun wi nga jëm man man non day ma pare dama ni invité bi buur la te day expliquer. pourquoi il est candidat. pourquoi nga gën nga ñuy expliquer. dans une minute bi ngay wax conclu amu ma ko. non kenn waxul am na dama ni. dama ni weddi ko rek Sénégal yi ngeen déglu waaw Sénégal ku Kouthia nga lay suivre aussi. voilà popularité wala déet. mais je crois que il était dans les guignols de la politique. yaa je crois ah bon voilà donc. non non ma terminer termine je termine une condition popularité. waaw ah, mais pourtant il faut pas l'oublier. l'étonnement popularité les guignols de la. de la waaw waaw c'est ku kenn xamul kenn du la jouer kenn du la imiter. bu la yëlee ñu naan kii kan kii bi kan la waaye ku ñëpp di tous les jours kii buzz di def buzz tout le temps boo ko tegee nit ñi dañ ko suivre ndax ci moom la. mais au théâtre ce soir. oui ci moom mais dama ni. réew mi tàkkee loolu du théâtre. tal kër du théâtre jël ay jaas yi du kër jàmbur pour rey ko du théâtre man maa taxaw nekk le général le défenseur du peuple te dans mon programme premier point bi c'est la sécurité je serai le candidat de la sécurité avant mu ñëw ci yeneen et du progrès loolu mooy sama slogan. mais mais mais maître vous avez la mais yow yaa ngi wax waxi sécurité te événement yi nee nañ sa kër dañ ko attaqué. oui léegi yow nan nga la ñuy attaqué sa kër parce que xam naa ne sa kër boo amoon sécurité kenn du ko attaqué. voilà nga bëgg sécuriser léegi Sénégal. question bu important bala ñuy dem feneen ñu régler problème boobu. sama kër bi ñu déggee nii a 15 heures lay programmé pour taal ko ci Facebook depuis États-Unis ñooñu taalibe waa jooju nekk foofu ci ay xam nga ne Canada ak États-Unis yooyu. band yooyu ànd ak moom moom mooy chef band yi xam nga léegi mun ñoom ordre bi moo doon taal Sénégal wàcc leen taal ku dee sa yaa juraat am problème nee na mortel combat. nañ def Macky Sall Samuel Doe daggate ko ay morceaux. langage violent bi ma waxee yooyu dinañ mi taal sama kër j'ai appelé Antoine Diome ministre l'intérieur moi Jean Baptiste au commandant de la gendarmerie parce que Maris zone zone de gendarmerie la ñu woo commandant de la brigade de ah. de de Anne Coly boobu à l'époque nee naa Coly yow yaa taal sama kër je l'ai dit haut et fort jël camion gendarme yëpp ki sama kër sur ordre du capitaine su jabar génn dem kër yaayam ak waa kër gi te midi bi ñu génn parce que 15 heures taal sama on a vu ñu ngi def avanté ci biir xale jox dara dafa sama kër taal ko léegi bi ko gendarmerie camion ak gendarmerie midi 15 heures mais midi ñëw nañ ndax en tout cas Antoine Diop jox instruction Jean Baptiste Tine le haut de la gendarmerie bi général Moustapha remplacé biñ ñëwee toog Coly ne ma saa yee les les gendarmes sont là-bas yóbbu sama jabar génn na dem gendarme yi gardé kër gi ak gardien kër gi man man ayewuma fa mais jël naa jël naa mesure yëpp man boobu maa ngi ay almadi léegi sama kër troisième femme la ma troisième épouse léegi bi loolu amee kóoli toog ba mu nekk ko rek 17h30 18h comme gisul kenn boobu xale ñu ngi wër kër gi bu ñu kiiyee gendarme yi ana yeeraat. waa koñ bi ñu leen seen ñu dem ak yow di wër wër wërul mais ñee mu ñëw ci kër gi mu toog booru 18h30 ay booru timis boobu dafa am couvre-feu bu ñu nekkoon une heure de temps rek couvre-feu dem dem leen renforcer ñu nekk Auchan wala ñu taal Auchan Maris alors que amoon na beneen oto camion bu ko gaayoon parce booy woo ci Auchan la taal pour jël la fa nekk bi ñu déparé rek booy yëlu surveillé wax ko ñeneen ñuy commencé daw kër ka nekkatu fa à part gardien bi yaa ngi moo sama jabar néew gars yi song nañ kër gi moo ko lii mu ne woy woy dama leen un peu un homme euh, de scène sax noonu ngay plaider et tout ba pare ci plaidoirie nga am xorom kooku moom kenn mënu la ko bañ nangu mais nag dafa am benn affaire c'est-à-dire que euh, li fi am. sur le plan politique bon yow boobu ba léegi yaa ngi koy wax depuis Diouf euh, astafurlah depuis wadd depuis wadd wax ma sax Senghor parce ba ci Senghor yow suma morom nga maa la mag tuuti rek xam nga man mii Kaolack laa jànge donc voilà alors euh, depuis université yooyu bon temps contestation bi ak yooyu yëpp bon ba ñëw ba yegg si disons ñu pa ñu tëb Diouf daal pour venir ci mm-hmm. ci Wade mm-hmm. bon alors donc boo xoolee y a système politique bu fi installé wu boo xam ni kii au bout du compte boo demee bay toog yow di wax naan je suis le député du peuple alors que sax yow Pa Iba moo la njëkk a wax loolu moom moo je crois indi sax terme boobu la député du peuple mm-hmm. voilà c'est que c'est très grave parce que des députés bu ñu demee ba ay député di ci singulariser wu du fait d'une pratique ba ay ñoo xam di revendiquer naan ay député du du peuple lañu moom mooy que y problème c'est-à-dire kon euh, assemblée nationale peut-être li ko fi teg ak li ñu ko fiy doyee euh, lu bari manqué na ci. waaw bu ñu demee ba nga xam ni député yi qui sont censés être une émanation du peuple représenter le peuple génn ba ay nit taxaw di wax je suis le député du peuple pas Iba Der commencé ko balaa nga ciy ñëw c'est très grave. loolu pour en arriver à quoi tey nga ne bon après man kat dama am parcours boo xam ni j'étais ministre xam nga vice ministre ndax lan vice ministre dans un domaine boo xam ni li nga ci xamoon sûrement bariwul parce que dans le domaine donc de de l'hydrographie gisuma ci loo xam ne da nga ko cee xam peut-être mais puisque fii on ne demande pas un ministre mu xam mais on te donne tout un ministère ñooñu nekk sa ginnaaw je ne pas le mérite bi nga amoon ci kii ak Wade interagir on a vu tous les ministres de Wade je que à partir de Wade il y a ne ne ce pas de l'autorité de l'État parce que on a vu que nu ko neex la doon nommé ko ne moom sa boppam wax na ko ne bu ma